ren mu toll ci 116 ans de compagnonnage mu jox diggante Serigne Saliou ak Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké ñu mel ni saa su ne wax dëgg yàlla événement bi dafay nekk événement bu particulier ndax cantaakoon yi fu nekk ñu jógee ci Sénégal ci quatre coins du Sénégal ci àdduna ngir ñëw tey fii ci Madinatoul Salam ngir célébrer ko ngir fësal cant gi Bordeaux tamit Serigne Béthio Thioune mi ngi ko fay cant ndaxte àdduna rawatina diaspora bi waa France waa États-Unis waa Europe tamit ñu ngi Bordeaux fas yéene fa tamit euh, def cant gi moom ne àdduna bi yëpp yi mu ne mi ngi jëng jëm si màggal dajeeg Serigne Saliou ak Serigne Béthio Thioune bu gis image yi nii wax dëgg yàlla mel na njabootub Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké universel soxna Adja Saliou Thioune Euh, ni nga ko gisee nii ci image yi universel euh, soxna Adja Saliou Thioune ak tamit universel euh, soxna Adja wax dëgg yàlla ak tamit jëwriñ soxna Mboose ak soxna Aïcha Kan ñoom ñëpp di ay njabootu sëriñ bi te ils ont fait le ils ont déplacement ngir màggal dajeeg Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou lépp jëm ci 17 avril wax dëgg yàlla 7 avril 2019 ren ji gis ngeen ren ak innovation majeure ndaxte wax dëgg yàlla donte sax Serigne Bachir nekk fii waaye cantaakooni seen pas-pas bu leen xamee seen détermination bu leen xamee seen ngëm-ngëm bu leen xamee dara soppeeku ko ci franchement ndaxte ku xool lii tey xam ne ñoom day dëgg yàlla jëmm tënku leen Serigne Bachir suñu yar gi mu leen yar ci tawxiid yar gi mu leen yar ci xam-xamu Serigne Touba ci xam-xamu Serigne Touba te ñu jëy tari nañ ko ñu mel ni jëruñ natir si sa bio euh, jëruñ natir bio gis ngeen image yu am na ay laax am na ay mburaake am na li nga xamante ni moo di ay euh, ay ay ay laax ay méchoui ay sauce am na ay firiir am na ay gâteau sucré salé lépp jëm ci li nga xamante ni mooy 17 avril 2019 fii ci madinatu salaam ñu mel ni incha allahu rabi fi leeg ngoon di ngeen mën a tamit teewlu cant gi euh, tamit cant gi lépp jëm ci dajeeg Serigne Saliou Mbacké ak Serigne Bassirou Thioune lu ñu mën a wax rek mooy universel soxna Aïda Saliou Thioune moo ko jiitee universelle soxna Aïda Saliou Thioune moo jiitee li nga xamante ne moo di euh, liggéey bi teg ko fa ko Serigne Bousso Thioune tegoo dara soppeeku ko ci rien n'a changé loolu rek wax dëgg yàlla di mandarga li nga xamante ne moo di cofee la ñoom si Serigne Bousso Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul invité yi tamit ñëw nañu ndaxte boo nee ak cant invitation boo nee ak cant ni mbooloo waaye kenn mbooloo ñëpp ñëw nañu ndaxte Serigne Bachir Thioune fi mu ne ñëpp d'habitude waa kër Serigne Saliou Mbacké ñëw nañu ñoom Serigne Moussa Niang ñëw nañu ñoom Serigne Moussa ñëw nañu waa Touba ñoom Serigne Fallou Seck kenn demul ñu des saa su ne ñoo ko daan ànd ak Serigne wax dëgg yow tamit ils ont réitéré sa kóllëre yeesalaat nañu seen kóllëre ak seen pas-pas ak ko ci Serigne Bachir Thioune jaamu Serigne Saliou Mbacké Khadimou Rassoul ñëpp jëm ci 17 avril 2019 ci Madinatu salaam lu mën a wax rek mooy wax dëgg yàlla l'ambiance est exceptionnelle le décor est exceptionnel li nga xamante ni moo di lu ñu fi gis moom dëgg yàlla il est exceptionnel c'est ça lu mën a constater l'observation est vraiment touchante moom daal wax dëgg yàlla gis ngeen ko nekk lu am solo nekk lu particulier soxna Aïda Saliou Thioune wax dëgg yàlla jëmmi Serigne Bethio Thioune moo ko jiite sous la présidence de l'universel soxna Aïda Saliou Thioune soxna Aïda Saliou Thioune soxna Mboose tamit jëwriñ soxna Aïcha Mamakane